benn waxtu jot ca sànnaax pël ak sànnaax wolof nekk ca ndaax ñi dikk ak yéen ci xibaar yi. li ci gën a fës ndar tàngat ci tey jiitam étudiant université Gaston Berger wàcc ci mbedd mi ngir naqarlu li ñu faat seen morom bii di Alpha Yero Tunkara moom moom mu sax néew indi nañ copital hôpital principal ngir def autopsie xam li ko faat mu fekkee étudiant université Cheikh Anta Diop yu Dakar fas yéene yëngu-yëngal ngir ñaawlu li ñu faat kooku di Alpha Yero Tunkara gannaaw protocole de Rebeuss ak protocole de Dawa Sénégal jëm ci protocole di Cap Manuel ay waxtaan am jamono ji ngir Ousmane Sonko génn kaso ñiy dox loolu le Pierre Goudiaby Atepa Alioune waxtaan ci RFM seen i kaddu ci biir xibaar yi mu fekk président Macky Sall wax ay kaddu yu jox coow ak i commentaire ci waxtaan ak ay taskati xibaar yu bitim réew njiitu réew mi daal di artu way politique ni suñ moyul yeneen kuréel yi gën a organisé ñooy ñëw euh, jël nguur gi ñu perte gëstu waana Rocha ci biir xibaar yi ñëw président Nigéria ci Sénégal tey dañ ko mujj dàq dootu ñëwati moom njiitu CEDEAO waroon a ñëw ngir dox tank jàmm ci coow lu am ci réew mi fan yi tàggat Sénégal gagné bi ci kanamu Nigéria gan daañu jeexale gis-gis di dellu si waat tey nag li waxtaanee yan yoon lañu ñu mën a jaar ngir dal ak jàmm dellu si ci réew mi mu nekk li gën fas ci xibaar yi ne su dina jaay. El Hadj Ndiogou Diène Abdoulaye moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg gi dañ koy door ak mbirum étudiant ba ñu fàtte université Gaston Berger ajjuma gannaaw yëngu-yëngu yu amoon ci réew mi moom moomu di Alpha Yero Tunkara néewam nag daal na indi nañ ko fii ci Ndakaaru ci hôpital principal ngir def autopsie bi xam naka la ko faat jamono ji sax ñu ngi ci autopsie boobu di koy def foofule ci hôpital principal bu ñu sukkandiku ci ay njabootam waral sax ñi di nga xam ne ñooy étudiant yu nekk ci université tey tamit ñu daal di génn bare tali bi jàmmarloog takk der yi ñoom nag li ñuy ñaawlu mooy mbirum uh, Alpha Yero Tunkara boobu ñu faat lañu bëgg ñu daal ci indi leeral dañuy dem foofa ca Ndar fekk ndaw fa ndaw lañ fa toogal di seen i job seen ñu ngi lay nuyu. Uh, maa ngi lay jaar bu baax uh, baax El Hadj ndax mbir yi sedd na wala ba léegi jàmmaarloo yaa ngi wéy. waaw ba léegi El li nga mën a jàpp mooy jàmmaarloo yi mi ngi wéy ci diggante way takkadeer yi ak ñi nga xamante ni ñooy jamono jii may wax ak yow lu tollu ci ñetti ci kilomètres la ay oto yoo xamante ni ñoo waroon a jàll mënuñu jàll ndaxte route nationale numéro 2 bi dañ ko daal di bloqué complètement oto mënul dem oto mënul dikk jaar ci université bi itam gendarmerie ci porte yëpp ñoom ñoo fa ne étudiants yi mënuñu génn ñuy jàmmaarloo li nga xamante daal moom lañ ci mën a wax mooy étudiants yi ñoom la sàkku mooy nañu fexe ba lépp lu jëm ci wàllu mbir mi mu mën leer nee nañu nag du ñu nangu benn yoon ñuy daal di jébbal seen borom euh, ki nga xamante ni mooy seen naataango boobu di Alpha Euh, Tunkara te kenn autopsie bi waxu lu leer ba ñoom itam seen i bopp ñu mën a xam fan la ñuy teg seen tàng jamono ji may waxee woo itam comité de crise bu université Gaston Berger bu Ndar ñu ngay dajewoo ngir mën a xool yan pexe la ñuy fexe mën ko lal ngir jàmm mën a desuwaat ci université bi mais daal si étudiants yi moom li ñu mën a xamle mooy tànk mbir yi leerul euh, kenn du dellusiwaat lu jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy université bi mbir yi nag tàng na lool ndaxte ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi ñoom seen jàmmaarloo euh, jàppal ni àjjuma ba léegi mbir yi ma ngay wéy. Ousseynou Diop en direct kon foofu ca Ndar ñu koy jaajëfal yooyu étudiants yu Ndar nag am jàppalul ak seen i nattango yu nekk fii ci université euh, université euh, Cheikh Anta Diop bu Dakar ñoom ñu ngi ñaawlu li ñu faat seen morom boobu di Alpha Yero Tunkara fa yéene nag yëngu-yëngal bokk na ci sax benn toogaanu ñaxtu boo xam te ne semaine bi di ñëw daañu ko amal bokk na tamit ñoom la ñuy sàkk ñu daal di umbeet campus bi leen seen i bourse Euh, tey lañ ko fësal sànq bi ñu doon euh, euh, jënd ak taskatu xibaar yi dañuy déglu Ibrahima Ndoye kon Salimata lañ ci àndal kon ci dañoo boobu étudiants yu ndakaar yi doon jëndoo ak taskatu xibaar yi. ay étudiants yu mer loolu ñoom ñoo jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir ñaawlu li nga xamante ni moom mooy faatuk Alpha Yoro Tunkara di seen naataango bu nekk ndar ñoom nag ni na lépp leer. li nga xam ne nii mooy acte bu ñaaw bi xew université Gaston Berger di jaale sunu mbokk bi nga xam ne ni génn na àdduna muy Tunkara di ko ñaawlu. di ko naqarlu parce que mënuñu comprendre étudiant bu génn këram bàyyi ay waajuram ñëw pour jàng si wuti xam-xam ay policier ou bien état du Sénégal ak police am ñëw jël ay balu fetal di ko dóor ba mu ñàkk ci ba mu ñàkk si bakkanam ñun ñuy dóor ñun ñuy damm ñun ñuy dàq université. tëjub campus social bi itam ñàkk def cours bi bokk na ci leen metti moo tax ñu ni li ñu bëgg moom mooy ubbiteefu campus social bi lu yàgg-yàgg ndorteelu weeru mars. depuis dix mois ñu ngi toog suñu kër yi di dund naqar boo xam ne ni mun ñu ko mun ñu ko expliquer jàngatuñ toog bi yàgg na xaar bi yàgg na lañ ubbi université bi ñu commencé jàng. boobu ba léegi ñu ngi ñu ngi avancé pour xool naka lañ ko ubbi mais dara dara rien du tout donc nag ñu leen di waat encore une fois interpellé président de la république Macky Sall di interpellé autorité université yi ñu leen jot na ñu ubbi université étudiants yi jàng ci nu mu gën a gaawee lu mu gën a gën a gaaw gaaw au plus tard mois de mars war nañ ubbi université étudiants yi dellu si waat mën a jàngaat ab sit-in nag na nañ koo amal ay bés gi ñu jëgmal ngir ñaawlu nee nañu nit yi nga xamante ni léegi dafay tardé lool boobu ba léegi ñu ngi toog di xaar tey ñu ngi ci bourse ba léegi nañ jotuñu bourse ñu téye bourse yooyu noonu mais loolu du yoon dans la semaine dinañ def benn sitting ñu woo étudiant université Anta Diop yëpp ñu ñëw ñu pour ñu ñaaw li nga xam ne ni mi ngi xew université Anta Diop Dakar seen déclaration bi nag ñu nammee woon def buntu direction kudd dañ leen faa jëlee yóbbu leen benn restaurant bu nekk ca pegg ga ngir ñu defeke fa te sax nag autopolis moo taxawoon ci buntu gi muy lu ñu ñaawlu lool Salimata euh, aw euh, une heure tegal euh, juróomi minute ci Rebeuss Cap Manuel ak ca Palais de la République. ak RFM kumpa jeex na. wéy ci xibaar yi wax ci géew politique bi jamono ci nag mel ni jàmm lañu euh, ñëpp di wote ngir nag dal am ci réew mi ah, ci loolu sax ñi njoxtu ne jubóo mën na am diggante président Macky Sall ak Ousmane Sonko jaareel nag nag ci protocole Cap Manuel ñoom ñaar ñëpp noppi nañu daal ku nekk bàyyi dara loolu nag gannaaw ay tànku jàmm joo xamante ne kilifa yi ci mel ni Pierre Goudiaby Atepa ak Alioune Tine dox nañ ci ba am nañ ci yaakaar ne ñun jàpp ñëpp daañu ko leen bàyyi waxtaan tamit dina am diggante ñaar wàll yi loolu nag euh, am gannaaw nag wax tànk ñu dox ci ndimbaluk euh, soxna si njiitu réew mi di Marième fay Sall da gëstu Mouhamed Ali Mba daañ ci ànd ak yéen ci biir xibaar yi mu fekk jamono joju président bu Nigéria di tam jamono ji njiit bu CEDEAO euh, moom nag waroon na ñëw Ndakaaru te ji altine ji waaye nag dañ ko mujj a dàq euh, Bola Tinubu euh, ñu doon ko xaar waxtu wi kon 13h la si fii ci Ndakaaru waroon daje sax ak président Macky Sall ñi nekk ci géopolitique bi ngir xool naa li ñu koy fexe daal ba Sénégal génn ci guute mu tàbb jamono ji bu fekkee ne nag président bu Nigéria mujj ñëw député yi CEDEAO yi ñoom ñi ngi Ndakaaru ñoom ñu sax di daje waxtu yu ak président. bu assemblée nationale Amadou Mame Diop euh, buñ ci noppee nag ci ngoon gi daañu dajee ak président groupe parlementaire yi fare ci kujj gi ak ci euh, nguur gi foofu la ci assemblée national jamono jooju ki nga xamante ne mooy Doudou Ka di ministre bokk tam euh, ci parti bii di APR moom gis ne li ñu mën a def daal mooy fexe ba dendeel élection yi ñu jàpp 15 décembre ñu ngi amal ko laata ab boobu waaye tamit foog ñu waxtaan ci boo juboo moom nag tamit ne li wér te wóor a des gannaaw 2 avril lépp nag euh, lañ koy waxtaanee ñu jox euh, kilifa beneen kilifa mu jiite réew mi loolu yëpp nag ay waxtaan la duduka xam na nu mel ji moo nekkoon gannu ko RFM matin su ñu waree trouver sortie de crise benn solution mën na nekk ñu xool naka la ñuy defee élection yi le plus rapidement possible parce que toxal élection yi moom acté nañ ko ba pare. lu ma bëgg a wax may que mën nañu continuer si lu président bi wax consolider le dispositif de contrôle du parrainage ñu ñu nangu ñu ànd si naka la ñuy demee si organisation élection yi euh, bu bu gaaw ñu peut-être pas le 15 décembre mun parce que le 15 décembre c'est une proposition de l'Assemblée nationale aujourd'hui dialogue bi mën na ñëw mu nekk beneen date bu gën a bu gën a. gaaw da nga jàpp ni quinze quinze décembre bi baaxul dañoo war a puusaat yi fii. dama ne quinze décembre bi dama ne tey suñu waree au contraire dama jàpp ni mën nañu taxaw ba mu gën a rapproché wu man mën na nekk. mu gën jege mu gën a jege. parce que tey lu am solo mooy ñu consolider système de contrôle du parrainage ñu war a bokk yëpp ñu wóor ni ñoom ñoo war a bokk. ñu dem ci élection yi. lu loolu ma jàpp mooy que président. de la république Macky Sall wax na ni pare na joxe lenge si nguur gi donc moom bu dee tey dañu war a wax ni dafa war a joxe lenge bi mu am même beneen man wax naa ko ko wax naa ko si comme sax man sama position mooy que c'est pas forcément le président de la république qui doit assurer l'intérim à à partir du 2 avril. Euh, koo ci gis kon. non suñu constitution bi réglé na loolu donc jarul mmh. comme ça. président assemblée nationale. par exemple suñu constitution bi moo ko wax kay. suñu constitution moo ko wax kay di kàddu euh, Doudou Ka di ministre de l' économie du plan de la coopération bokk tam ci APR moo doon tey gànnug euh, Babacar Fall ak Georges Dethié Diop ci RFM Matin des ba léegi ci wàllum politique ak kuréel gu bees gu juddu muy nag collectif des universitaires pour la démocratie di mbootaay gomb ay jàngalekat université yu taxaw ngir aar démocratie ci Sénégal ñoom nag ñaari mbir yéen ñu sàkku mooy élection yi 25 février bi ñu ko jàppoon ñu amal ko ci waaye itam njiitu mu daal di abale daal di ñoom tey lañ ko fësal dànk bi doon janoog taskatu xibaar yi dañ ciy déglu kenn ci ñoom Jean-Louis Correa ci micro Fama John universitaires yi ñu doon war nañu jindi réew mi ndax démb dafa am koy wax ba ne ñun nguur daf ñuy fay may ñu temps may ñu jot pour ñuy xalaat bu ñu xalaatee ba xam lan mooy démocratie ba xam lan mooy constitution ba xam citoyen bu nekk lan la la yoon jox ci wàllu yelleef àq ak yelleef li xew ci dëkk bi xew ci dëkk bi ñu am sañ-sañ dugg ci biir amphithéâtre jàngal étudiants yi ne leen constitution Sénégal kat dafa ne président warul def ñaari màndaa yu toppoo yu ñaari yoon lu ëpp ñaari yoon mandat ne mandat boobu kat kenn mënu cee yokk lu doon benn fan sax kenn amul sañ-sañ yokk ko ci loolu bu ñu amee sañ-sañ di ko wax étudiants yi ci biir classe ñu gis kuy doxal ci réew mi loo xam ne dafa safaanoo li nga xam ne moom la ñu jàngal ngeen jàpp ne du yoon ñu génn ne askan wi ah ñun kat li ñu sañ a jàngale ci classe sañ nañ ko wax ñëpp di ko dégg léegi nag ku mu neex nga jàngale lii boo génnee ci rajo bi ak télé bi nga wax lene waaye ñun ñi nga xam ne ñun ñoo bokk li ñu xam ñu xamandoo ko li ñu am sañ-sañu jàngale ñu am sañ-sañu jàngalandoo ko bu réew mi tolloo fi mu toll nii suñu wareef li tubaab di wax suñu devoir mooy ñu génn askan mu nekkoon Jean-Louis Correa bokk ci euh, collectivités universitaires pour la démocratie wax ci njiitu réew mi kàddu yi mu yëkkati bërki démb samedi ci waxtaan mu seqoon ak ay taskatu xibaar yu bitim réew bokk ci kuréel gi ci yéenekaay bi di Associated Press moom nag euh, yëkkati na ba kàddu boo xamante ne jur na coow boobu ba léegi ndaxte nee nañ way politique yi dinañu tey xool ni ñuy doxale lu ko moy rek am na ay kuréel euh, organisation ñoo xam te ñoo gën a ñooy jël réew mi ñoom ñëpp nag way politique gi daal di perte loolu nag ba njàngat lañu ci mën a def gëstu bana rocha gannaaw kàddu yu mu yëkkati ngir xamle ni dakkal na élection présidentielle bi ñu namoon a amal 25 février kàddu yi mu yëkkëwaa yëkkatiwaat ajuma ji weesu ci suñu naataango yu AP gën na andi jiixi jaaxa donte ne ci gis-gisu Demba Gueye maître de conférence en analyse du discours ca université Cheikh Anta de Dakar kàddu gi gën naa dal la majorité des Sénégalais dañ koy interpréter comme euh, étant un appel au coup d'état loolu moom il faut ñu wax ko mu leer pour man dafa war a ñëwaat le plus rapidement possible la sortie du ministre de euh, porte-parole du gouvernement ne suffit pas mhm. Macky Sall dafa war a génnaat préciser que ne li mu bugg a waxtu loolu parce que bu ko deful opposition bi déjà déglu nga leen ci conférence de presse yi ñu def yi ñu jot a def dem am na benn coalition boo xam ne def na conférence de presse euh, yëpp ci loolu lay tourner ce qui veut dire que opposition bi commencé na braqué wu parce que day considéré ba France bi ngay wax nii comme une menace. ci gis-gisu analyste politique bi di Assane Seck analyse bi ci ñaari boor la war a féete timing bi mu tànn waaye itam li ci laxasu. bu ñu jëlee ndax jamono jii la ko war a wax. loolu dañuy ni déedéet. yow dalal ak waxtaan ngay woote. waaw naka la nit di mën a wootee dalal. ak waxtaan ba pare bëgg ci boole xuppaate. ak bëgg ci boole chantage du jamono non du jamonowu tamit di xut ay opposition ndax euh, président Macky Sall lu muy fàtte mooy moom ba muy waxtaan waxtaanam bii passé moom mooy yoroon li ñuy wax carte en main cest à moo yoroon lenge yi waaye bii nii mais lenge yëpp yoru ko lam ca wax tamit du wax ju rafet suñ koy jëmalee ci dëkk bi ndax dëkk bi moom dañuy fàtte ne que moo yor sécurité nit ñi waaw ku ñuy aar na bu fekkee daf ñuy tiital boole si loolu musiba la ci interview bi ñu siwal ajuma ji weesu président Macky Sall défendre na itam boppam nee na du dictateur ci gis-gisam Sénégal dafa soxlawaat temps ngir mën a saafara jafe-jafe yépp yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci processus électoral bi ñu génn ana Rocha fële ca Bambey foofu nag ñooñu Ousmane Sonko ya fa nekk ñoom di wéyal seen campagne dante sax dañoo dàq wote yi waroon na am 25 février ñoom nag ba léegi gëm nañu ne wote yi dina am tax sax ñoom ñi ngi nga jamono ji ñi ngi ci liggéey ñaawlu neen tam taxawaayu président de la république président Macky Sall Babacar Diouf. campagne électorale bi di wéy pour coalition Diomaye président ci département bu Bambey farandoo. Alioune Badara Diouf yi ne xoqatal ak tiital du tax ñu bàyyi seen campagne bi ñu ne. ñu wéyal ndax comme ni ñu ko waxee ba tey ñu ngi ci campagne électorale. aussi dañuy exiger. ñu tenir élection yi le vingt cinq février. loolu nag droit bi ñu amoon. war a dem ci population bi wax ak ñoom. loolu ba léegi gisaguñu dara lu ko fi jëlee. ndax li nga xam ne moo xew ñun ñëpp gisandoo nañ ko suñu bopp. ay tappale la ak i caaxaan yoo xam ne teguwul fenn. ak jaay doole. ci àllarba ji sax nee nañ dinañ dàbbaliwaat ci doxum ñaxtu boo xam ne ni dinañ ko amal ci biir commune Bambey. bëgg nañu ko def alarba daje euh, taxaw yëkkati suñu kàddu ci kaw wone ne Sénégal fi mu toll tey taxaw yi baam waayu Bambey wala doomi Bambey duñ ci des gannaaw ah, loolu nag euh, ñu bëggoon a daje tey euh, déparé ko liggéey bi mais aussi yëkkatiwaale suñu kàddu naqarlu li nga xam ne moom moom la Sénégalais yi du dund tey moom la président Macky Sall tey teg suñu kaw li ko gën a jëmmal mooy dem nañu ba jég dëggmal ay élection présidentielle desul ba douze heures de temps war a jëm ci ay campagne électorale ci ñàkk ormal population bi ñàkk leen respecté mu xëyee xëy ci loo xam ne teguwul fen lu dul ci doole boppam annuler élection yooyu ndax réperté wu ko. ci conférence de presse bu ñu doon def ci benn restaurant bu nekk fii ci diwaan bi farandoy Ousmane Sonko yi jot jàppale Babacar Ndiaye nekkoon maire bu Ngogom ak Ibrahima Diouf Mbal dëkk Ngoy nekkoon. directeur des ressources humaines ministère de la pêche Bambey RFM Babacar jëf Babacar Diouf euh, euh, une heure tegal fukki minute ak juróom-benn euh, ci kersitu Mbayeen ak Tukulóor nekk ci Pout. pour man RFM rajo bi gën seen soxla. wax lu saxal wàllu njàng mi euh, tey nag njàng mi soxe na euh, ci daara yu bëri ci réew mi bokk na ci ca Kaolack li ko waral nag mooy ñi nga xamante ni euh, ñooy élèves yi génne seen moroom yi bañ ñu jàng ndax tax jafe-jafe yi nga xamante ni am na ci réew mi jamono ji na waral sax ba ñenn ci ñi nga xamante ni ñoo fa nekk di ñaan daal ñu bàyyi xale ñu jàng ndax seen àq ak yelleef la reportage Fatou Mbow benn cours amul ci établissement scolaire yu bari yi nekk fii ci commune bi lu ci mel ni école bu mala Malafidian bu abattoir Ndangaan ay professeur ak yenn ci ay élèves donc lañu ñu daal di nemmeeku ci biir école bi mu nekk mbir bu jaaxle loolu buñ sukkandiku ci kàddu yu directeur bi di sàkk ci woy politique ñu daal di épargner lii di école sénégalaise Famara Mané. day na war sa laay wax lii moom kenn vraiment seetoo ko. buñ ko sañoon vraiment école bi dañ koy mettre de côté quoi ñu bañ a dugg mais affaire dafa xaw a jaxasoo daal te lu may ragal daal yàlla bu mu am daal. ci geneen wàll gi waajur yi ndongo yi di sëngeem ci mbir yu ni mel tax ba ñu am tiitaange lool si seen ëllëgu. njaboot. ñun doomi baadoole yi dañoo sonn dañoo tàyyi gën nañ bàyyi xale yi ñu jàng seen jàng nañ politique ñoom seen politique bàyyi xale yi yi ay innocent lañ suñ doom yaa ngi nii ñoom lañ yaakaar te ay xale lañ ñu bàyyi may ñu ñu jàng ndax ñu tekki ni ñoom ñu bàyyi nag ñu ni suñu avenir yi doom yi grève yi nu mu bëree ci école yi nag daal di gàllankoor itamit jaaykat yi ku ci mel ni Seynabou di xam li mu gàllankoor suñu yow tey nga dem jël xaalis yëpp dugal ko si njaay ki ne xale yi dem nañ ku nekk kenn jëndul njaay bi xam nga loolu métti na ci bile bës na mat benn cour amul fii ci diwaanu Kaolack mbirum politique bi daal waral mbir mu ni mel bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay ndongo waaye ñoom ñi nag di xamle ne waruñu boole benn yoon lii di politique naka noonu itamit lii njàng mi Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Media. Mbow la am ca Kaolack moo am tamit ca Pout foofu tamit jàng amu fa tey jii ñi nga xam te ne ñooy élèves yi ñoo génne seen i morom ngir ay waxu politique daal tax nag ba njàng mi soxi foofu lay Cheikh Anta boo leen gisee ñi ngi génn yor ay doj di yuuxu ay xale yu ndaw seeni at daanaka mën nañoo xayma na toll na ci fukki at ak ñett juróom bu fukki at ak juróom-ñaar di dox ci route nationale bi Pout ba ni ñu koy génnee ak ci biir mbedd Pout yi élèves lycée Pout ak collège d'enseignement moyen yi bépp oto bu ñu gis ne nag na seere ndaw ñi nag bu ñu leen laajee lu waral seen grève bi seen tontu liila la. oui vous êtes quelle école. école pour tous tous ban école ngeen nekk ah. parce que ce les élèves plus habiles de sortie. que Macky Sall a remporté les élections. ñu gis ni nag fii ci diwaanu cees daanaka gisuñu benn école bu gerew jamono yi nag élèves yi ñi nga jàng rawatina ci lycée Malick Sy RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta wax ci kap di mbootaay gi ëmb kuréel taskati xibaar yi ci réew mi ñoom nag nee nañ fa lu ngànkoon bàyyiwuñ ko ba léegi daañu xeex ngir nag taskatu xibaar yi gën moom seen bopp liggéey bi tey nag daañu amal euh, veillée nocturne maanaam ci guddi gi daañu dajaloo euh, li ñu ci jublu nag mooy ñaawlu ni alkaat yi di dale ci euh, taskatu xibaar yi fan yi dañ ci déglu Maguette Ndong di secrétaire général adjoint bu SYNPICS nekk bokk tam ci CAP ñu teewlu ko moom Mag Ndong ci jokkoom ak Boubacar Dieng. li nga xam ne mooy plan d'action bi ñu njëkkoon a def euh, dëgg la def nañ ci évalué def nañ ci ay soppite mais aussi tamit am na loo xam ne ba léegi dañ koy dañ koy dañ koy teg wéyal ko ci plan d'action boobu mooy li nga xam ne mooy veille nocturne bi mooy dañu woo ñi nga xam ne mooy tous euh, tous les journalistes techniciens ak société civile en tout cas yeneen citoyens yi nga xam ne en tout cas gis nañ li ñuy teg ci journalistes seen der rafetul ñu ñëw ak ñun def veille boobu pour naxarlu vraiment li nga xam ne gis nañ ko fan yi passé parce que fan yi rek bët ko démoo Ndiaye ki xam ne mooy suñu conser conseiller Abdou Absa Anne ne mooy suñu confrère bi euh, Mor Amar ay policiers ñu leen doon dóor xam ne kenn xamul lan lan ko en tout cas lan moo tax lool loolu am moo tax loolu yëpp ñun dañ koy naqarlu moo tax vraiment moo tax veille bi dañ ne il faut ñu maintenir ko pour naqarlu mel noonu maintenant leneen li nga xam ne nag mooy ay journée sans presse nga waxoon nañ ko ak yeneen ak a waxtaanaan xool ndax a am am li ñu mën a wax moom tey mooy veille bi incha allah dinañ ko def maison de la presse et di ci xaar ñëpp ñu nekkoon Maguette Ndong euh, secrétaire général adjoint bu Simpix ñu fàttali ne taskati xibaar yi waxoon nañ ne suba ci talaata ji euh, dàqu ñu amal kon euh, journée sans presse di bés boo xam te ne rajo télé kay yéen kaay di génn rajo ak tamit di ñu wax daaneel ak liggéeykat yi nekk ci de formation professionnelle horticole bu Cambérène daal di tàmbali tey gréew ñetti fan liñ ci jublu mooy seen anamu liggéey leen yi naka noonu tam yeneen jafe-jafe yu kookulee di Mouhamed Ly daañu ko déglu si suñu yeneen i xibaar. RFM bitim réew. xibaaru bitim réew Georges Déthié Diop lañ ci àndal Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi wax ci bombu bu kalaate démb ci réewum Cameroun. benn bombe artisanale benn nit moo ci ñàkk euh, bakkanam mu ngi amee ci ouest que dëkk ba am nak jamono ji nga xamante ne euh, ñaari waxtu gannaaw bi ab paradu ay écoliers doon jaar foofu ndax fête euh, national yu ñu jegleel ndaw ñi kilifa yi nag jàpp ne ñi def lu ñu mel ñoo di séparatiste anglophone ya nga xamante ne ñu ngi xeexook armée bi juróom ñaari at a ngi ni tey ñuy magal journée internationale enfant soldat maanaam gone yi soldat yi fukki fan ak juróom fukki fan ak ñaar weer wu nekk ci weeru février at gu ne lañ koy euh, màggal ci amali nag euh, euh, commémoration boobee am jamono ji nga xamante ne lu ëpp ñaari téeméer ak juróom fukki gone enfant soldat ca Gao bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu identifié génne nañ leen ca lañu ca lañu ca lañ nekkoon dem euh, ba Tunisie wax nag ci ay nit euh, ñu bëggoon a dem bitim réew ay doxandéem ndaak faatu gën kaa tuuti fukk ak juróom-ñaar la ñu nekkoon ci ab bateau migrant bi nga xam ne da doon dem euh, ñoom ba léegi jamono ji tegu leen gët kilifa ci garde nationale ne dañoo embarqué ay bés gi ñu weesu ci ab bateau nga xamante ne day napp jóge Bizerte ca nooruk Tunisie garde côtier ak marine bi door nañ gëstu yi maanaam opération de opération de recherche yi. wax ci guerre bi diggante Israël Hamas euh, bombardement yi di wéy euh, ca dëkk bi di Rafa ñi ci ñàkk seen bakkan yu bëri na lool. ñu bëri lool ay raid nocturne yi nga xamante ne ñu ne euh, téeméer ëpp na sax téeméer ci ñi ñàkk seen i bakkan waa Hamas ñoo joxe boobee bilan jamono ji nga xamante ne Israël nag nee na libéré na ñaari otage foofu ca Hamas wala bokk foofu ca Gaza. leeral yeeg Boubacar Dieng ñaar si ñi nga xam ni waa sa tegoon nañ leen loxo juróom-ñaari fan si weeru octobre atum 2023 daal leen di libéré lii nag mu ngi am gannaaw bi l'armée bu Israël duggee foofule ñi ñu libéré seen at mu ngi toll woon diggante juróom benn fukk jëm juróom-ñaar fukki at militaire Israël yi nag dugg si camp bu mag boobule gannaaw bi ñu amalee bombardement si lee zone bu ñu sukkandikoo si kilifay Palestine yi nag lu ëpp téeméeri nit jot nañoo ñàkk seen bakkan si bombardement yooyu le camp Moustapha nag mooy kan bi gën a mag bi nga xamee ni guerre bi door nañ ko ba tey te muy dalal ay nit yoo xam ne dañoo daw làqu ci foofule daanaka lu ëpp benn million nit bés bu jot dinañu ñëw ci boobu camp bilan wu lu ni mel nag bu moytuwul mu yokk ci bés yi ñu jëm ndaxte ki nga xam ne moo di Benyamin Netanyahu di kilifa ci Israël xam ne ni nag yile bombardement dañ koy gën a teŋal dooree ko altine ji kilifa yi àdduna wërngal këpp ñu ci bari di ñaaxaat ñi nga xam ne ñoo di waa Israël njeexital yu bon yi nga xam ni bombardement yu ñu amal ci Gaza ak askanam mu ngi koy am daanaka ñaari million nit jot nañoo jóge fi ñu dëkkoon ci Gaza daw ju feneen bi guerre bi dooree octobre ba léegi ñoom nag dañuy jóge foofu dem fi nga xam ni moo di bët saalumu Palestine lii tax bés bu jot ñuy gën a bari fi nga xam ni moo di Rafa ca États-Unis secrétaire d'État bi ñu dénk lëpp lu jëm ci wàllu ba défense di Lloyd Austin moom jamono ji mu ngi soin intensif ñu ngi ko yóbbu l'hôpital ndax ab problème bu jàmm bi nga xamante ne ñu ne ci vessie bi la euh, Pentagone moo xam le lu di mel euh, la mu doon def nag dénk nañ ko adjointam bi di Kathleen Hicks ci wàllu tàggat yaram euh, faatuk génnuk àdduna recordman du monde du maraton maanaam ki gën a xarañ ci àdduna ci marathon doomu Kenya bi di Kelvin euh, Kiptum mu ngi ñàkk euh, mu ngi génn àdduna ci guddi gi ci ab accident bi nga xamante ne mu ngi amee ci euh, diggu dëkk ba moom nag amoon na ñaar fukki at ak ñeent moo yoroon record bi 2023 ba léegi ñu ko doon seentu sax ci JO Jeux olympiques yi nga xamante ne ñoo fas yéene am ca Paris. jaajëf yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne Cheikh sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Diouf naka waa Côte d'Ivoire. ça va alhamdulilah mbir yi jeex na fi mu toll nii. gannaaw bi mu jeexee nag léegi xayma yi leen toll. waaw ca la ñu daal di toll jàppale nag Côte d'Ivoire mi ko organisé moom moo daal di jël ndam li leneen li nga xam te daal ko ci wax euh, moo di am na yeneen i mbir yi xam ne xew na foofu la ci Coupe d'Afrique bi dañ si ànd ak di ko jël la mu benn kayit bi nga xam te ne nekk fukk ak ñaareel bi yoon ci histoire CAN depuis atum ak Égypte Côte d'Ivoire nag bi moo nekk ñetteel bi yoon mu daal di jël li nga xamante ni moo di Coupe d'Afrique des Nations gannaaw atum 1992 ci Sénégal ak 2015 ci Guinée équatoriale ak trophée boobee nag Côte d'Ivoire dina daal di am 7 millions de dollars méngook ñeenti milliards ci suñu koppar finaliste malheureux bi di Nigéria moom it bi moo nekk juróomeel bi yoon muy am defet ci final Coupe d'Afrique des Nations tolloog sax ak Ghana mi nga xamante ni moom lañ moon di gis muy nekk vice champion d'Afrique ci noonee nag Victor Osimhen ak yi naataangoom daañu am 4 millions de dollars di méngook 2 milliards 600 millions ci suñu koppar Afrique du Sud mi nekk troisième ak RDC mi nekk quatrième ñoom ñaar ku nekk dina am 2,5 millions de dollars di yem bokk 1 milliard 500 ci suñu koppar leneen lu ñu ràññee ci 34e édition kan gile moo di kay tàggat éléphant yu Côte d'Ivoire di Emerse Faé mi nga xamante ni moo nekk manager bu njëkk a jël Coupe d'Afrique des Nations te ñu taboon ko sélectionneur titulaire ci biir compétition bi ñu gis sax ni ci gile édition juróom-ñetti sélectionneur tàqalikoo nañ ci ak seen équipe ñenn ñi dañoo tekki seen ndombal tànk ñeneen ñi ñoo démissionnel nga xamante ni nag amal nañ ko ci fanweer ak ñeenteelu édition kan bile gis nañ ni 119 buts dugg nañ ci lu jëm nag ci récompense individuelle yi Emerse Faé moo may tàggat waa Côte d'Ivoire dañu daal di tabb meilleur sélectionneur portier sud africain bi Rowan Williams moom ñu tabb ko meilleur gardien soulier d'or bi nag ñi ngi ko daal di jox Emilio Sue nga xamante ni dugal na juróomi but ci kan gile titre meilleur joueur bi ñu jox ko William Troost-Ekong bu Nigéria Simon Adingra ñu tab ko mu nekk meilleur jeune joueur compétition gile Soda euh, Thiam Cheikh dañuy wéy wax léegi lu soxal wàllum basket ci jigéen ñi ak tournoi pré-olympique euh, bi nga xamante ne euh, suñu gaynde yi ñetti defet ñetti match yi. waaw si ñetti jongante ñu doon amal yëpp dañu ko daal di ñàkk seen diggante ak Belgique États-Unis ak ñii diwaa waa Nigéria loolu nag waratu mën a doon mbetteel ndax équipe yooyu nga xamante ne Sénégal tase noonu ak ñoom foofu foofule ca Belgique dafa di ay équipe yi nga xamante ni mën nañoo jàpp ni ñoom ñoo mën Sénégal rawatina Belgique ak ñi nga xam ñoo di waa états Belgique nag moom moo di équipe championne euh, d'Europe États-Unis moom mooy championne du monde Nigéria moom mooy équipe championne d'Afrique Euh, waaye daal euh, yoon bi nga xamante ne daal ci la ñu nekkoon daf ñuy permettre ñu waajal afro basket bi ndax loolu moo di objectif u Sénégal ci cadre Nicolas Amadou Ndiaye di ab consultant basketball ñu daal ko dégg. yoonu basket yi pratiquement ñett défaite la ñu am si ñett match ay euh, ay défaite yu métti bon soo xool xoolee tamit c'était c'était difficile parce que dañ doon jokkaloon que États-Unis nga xamante ne ñoom ñooy champion du monde Belgique nga xamante ñoom ñooy champion d'Europe ak xamante ne mooy champion d'Afrique. soo xoolee xëy na peut-être si match bi ñuy joué contre Nigeria seen premier match bi euh, Lyon yi mënoon nañ mënoon nañ mënoon nañ gagné parce que pendant 3 4 temps ñoom ñoo ñoom ñoo dominé bi ñu demee ba si dernier quart temps bi la ñu la ñu la ñu jàll seen kaw gagné match bi. bon mais mun nañu wax ni que tamit refus d'effectif la rek pour coach bi parce que coach bu bees la donc euh, au moins là mun na xool dina dina mën a évaluer jour yi mu am et puis mu préparer afrobasket bi parce que objectif bi je pense que réellement mooy mooy afrobasket bi. ok kon bokk El Hadj yaakaar naan fi lañ koy daldi yamali xibaaru. jaajëf sëñ Cheikh jërëjëf. ak RFM kumpa jeex na. dellu si ci élément li ni leen wax euh, sànq ci biir xibaar yi jëm nag ci wàllum politique ak euh, jàmm koo xam te ne nit ñi ñu ngi koy dox euh, ay tànku jàmm diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko ñenn ñi sax njort ne fa muy jëm mooy Ousmane Sonko na génn kaso leeral yeeg Mouhamed Ali Mba Pierre Atepa Goudiaby kontaan lool gannaaw bi mu gisee ak président Macky Sall nee na nag euh, moom euh, waxtaan na ak Macky Sall Sall itam d'accord na ak Ousmane Sonko ngir ñuy faase lépp lu jotoon am ci seen diggante ñu xool avenir bi Pierre Atepa bi bokkoon ci médiation bi. ñaan bi nag mooy dalal réew mi. mën a waxtaan. seet nu ñuy am ay solution nu ñuy trouver solution yi nga xam ne. warut a jóge bitim réew ñun ñii ñoo ko war a ñoo ko war a trouver kon nag maa ngi koy gërëm di gërëm tamit ñi nga xam ne dimbali nañu ma ci mbir mi du ma joxe tur ku lim juum xamal leen rek ne defe naa bu ñëpp àndeek dal ak dëglu dëgloonte ñun ñëpp ay sénégalais lañu yàlla dinañu may ndam ci li nga xam ne moom la ñuy ut muy nga xam ne mooy la paix au Sénégal. ci journal Le Quotidien bu tey nee na projet de loi d'amnistie des faits 2021 ba 2023 ñu ngi koy préparé dina jàll sa ci conseil des ministres alarba ji ci fan yi ñu jëm sa dinañ libeere Ousmane Sonko ñoom Diomaye ak ñeneen Aliou Tine feelu ko ci wàllu wule moom itam bokkoon na ci médiateurs yi. nag libéré ñoom Sonko ñoom Diomaye yooyu yëpp dañu ne pour ñun ñu mën a waxtaan il faut ñu def ay actes yoo xam ne sur le plan politique c'est important boo nga préparé ko moo tax condition politique pour dialoguer dafa am keneen ku jàppale kon Pierre Atepa Goudiaby ak ñoom Aliou Tine mooy fay Faye Sall Marième Faye Sall soxna njiitu réew mi moom itam liggéey na si lu am solo buñ sukkandikoo ci Pierre Atepa Goudiaby di gërëm madame Sall ci li nga xam ne déglu nañu ñaar ñi nga xam ne def naa ko maak ñeneen ñaan bi nag mooy dalal réew mi mën a waxtaan seet nu ñuy am ay solution nu ñuy trouver solution yi nga xam ne warut jóge bitim réew ñun ñii ñoo ko war a ñoo ko war a trouver kon nag maa ngi koy gërëm di gërëm tamit ñi nga xam ne dimbali nañu ma ci mbir mi du ma joxe tur ku lim juum waaye nag moom Pierre jàpp na ni lu gën mooy concertation dialogue politique intéressé wu ko reste à savoir nag concertation yooyu ak signaux yi ñu jot joxe naka la élément radicaux ci ñaari parti yi naka la ñuy comprendre signaux yooyu lee ndaxte ñoom nañoo yàgg prôné confrontation CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant soumari.com Kenkeyri le grand Jaxaay ñoo ne may li ci yéene yi. ci yéene kaay dañ ca nag Mamadou Mouhamed Ndiaye. jëf xibaar bu neex ñi ñuy jàppoon ci réew mi ci manifestation yi fi amoon mars ak juin 2023 xët mu njëkk Le Quotidien mi ngi ñuy wax ne ngir décrispation maanaam dalal dën yi jug ci réew mi moo waral njiitu réew mi fas yéene amnistie ñi ñu tegoon loxo ci yooyu la manifestation projet de loi bi koy jëmmal yéene bi nee nañu dañu ko waxtaane ci ndajem ngi yolamal yëf yi ndax licence bu bi ñu nangu woon nee na nañu ko delloo seeni borom boole ceekit mi ngi waajal ak amnistie générale ba tax Ousmane Sonko ak i compagnie ñoo ngi ci yoon ak i nit yu fara ci société civile bi yu jóg xaaju guddi sol seenu dal dox ci tànki jàmm jalak mu di waxtaan wi ñu nasaka nocc ci réew mi l'observateur gis na ne paaka ñaari boor lay doon ci Ousmane Sonko ndax xëy na mën na caa jaare am li mu bëgg mu di ñu këram nañu ginnaaw fit nañuy nemmeeku ci réew mi keroog mu tukkee ci dàq gi ñu dàq élection présidentielle yi président de la république Macky mi ngi dànkaafu ñi ci géopolitique bi dégg nañu ko keroog mu ne politique yi bu ñu munta déggoo ci farata danañu gis yeneeni force yu organisé yu ñoo def ko seen place te bu boobaa lépp luñ doon yóotu dañu koy ñàkk ba ci réew mi sax l'observateur nañu cib interview bu mu def ak Associated Press dip agence de presse ñoo fi nekk yeneen force organisée yi muy juñu moom public yéen mi ngi wax ne am na lu mu waxul ndax bi ñu génnee ci émeutes yi fi woon juin déggoon nañu Abdoulaye Wade mi fi newoon ci yooyu la jamono muy wax ne dafa am ay forces occultes yu bëgg teg loxo ci réew mi 1968 Léopold Sédar Senghor moom it demoon na bay sant l'armée bi ñu jël nguur gi déggoon nañu fi Abdou Diouf mu doon tuumal ab coup d'état kii di général Louis Tavares da Souza bu doon ab constitutionnel ko bu boobaa dinañu wax lan moo ca war a topp ci ñi koy topp moom président Macky Sall kenn ca di soxna Ami Mbacké wax ci journal Tribune li mu xalaat ci dogalu bi jëm ci bi ci réew mi ñu wuy ji ci loxo waxtaan bi leen jiit réew mi tàllal ndax jàpp na a bokk ñu bàyyi la nga bokk ci loolee bu ñu ko bëggee ci toog daaneel Maguette Sène jël ci journal Tribune ubbil yéenekaay bi moom directeur général bu kudd jàpp na ne reporté gi ñu reporté élection présidentielle yi mooy li gën ndax dana tax ba ñu am ci réew mi ay élection yu leer élection yu dul boddi kenn ay élection yu indi ak dal ci réew mi maire Malicounda bi ne président dafa soxla suñu soutien ñun ñëpp ngir ak dal ak jàmm am ci Sénégal mu ne ñaar rekk mën a am benn moo di ñu toog waxtaan ba gindiku rëq-rëq yu fi am ñu jubbanti ko mbaa boog ñu continuer ci li fi nekk te bu boobaa dara lu dul dugal mi ci góota màgget seen ñu ci maa ngi sàkku ci ñu séq géopolitique bi ñu jiital dal waxtaan ak jàmm Sénégal enquête dina kay nañu waxtaan woowee nag mooy problème bi manifestation contre dialogue yëf yi dafa mel ni tëx yu toog bëgg a waxtaan ci jamono joojee journal Libération mi ngi wax ne ñi faatu ci réew mi ci manifestation yi fewoon keroog àjjuma lim ba na ne bu Tunkara di étudiant UGB bi faatu ak Landing Jeeju di ndaw lu tolloon ci ñaar fukki ak ñett te faatu woon ca Sigicoor moo duggee mi ñu blessé woon ak balu fetal ca Colobane la santé sumari.com Kenkeyri le grand jaxaay ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. mbokk si mbokk yi ñuy yegg seeg yéen léegi ci gis-gis tey nag li ñuy waxtaanee mooy yan yoon leen war a mën a jaar ngir dal ak euh, jàmm ci réewum Sénégal loolu nag euh, gannaaw fitna gi jëm jukk temps euh, jamono ji ci réew mi bi président Macky Sall jëlee dogal daal di daq wote yi ba 15 décembre ngir waxtaan ni ñu mën daañu ci ànd ak docteur Malaw Kanté di analyse politique docteur en philosophie politique nekk jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar docteur Kanté ñu ngi lay nuyu. jërëjëf nuyu l'ensemble des auditeurs de l'ARFM ñu ngi lay fay daañaan tam ci waxtaan bi ak Babacar jon moom tamit di analyste politique su naataango taskati xibaar jiite yenekaay bi di lii quotidien Babacar ñu ngi lay nuyu. maa lay fay El Hadj Ndiogo. Euh, jamono ji réew mi euh, fitna jóg na fi baax a baax mais euh, gis nañ ni jamono ji am na ñu sol seen dàll yi ngi koy dégg sànq sax lu mel ni Pierre Goudiaby Ali Atepa Alioune Tine di dox tànku jàmm ngir daal président Macky Sall ak Ousmane Sonko daal di jubawaat ñoom sax am nañ ci yaakaar bu baax a baax gannaaw tànk ci ci dox ban njàngat ngay def ci luñ mel. Ah, El maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs RFM yi. Ah, li ma si njëkk a jàngat ah, xam nga yéen a ngi jàllale benn élément léegi di wane ni waa université Cheikh Anta Diop yi ñu ngi bëgg a def ñaxtu pour wane ni leen metti ci seen étudiants yi ñu rey au même moment ñi nga xam ne ñoo dee depuis euh, mars 2021 ba juin bi ñu génn ñi nga xam ni kat ñoo taxoon ñuy xeex ñu ngi nii di waxtaan léegi ñu ngi nii di waxtaan léegi mhm. de par et d'autre position yi taxaw na te gisoo si sax benn porte-parole parti politique wala sax benn benn leaderu étudiant sax boo xam ni gaañu na si dee na si ñi si ñàkk seen bakkan mooy ñi nga xam ni peut-être euh, en tout cas ñu si xeex bi. Hmm. loolu jàngat bu am solo la. Hmm. quelque mois après ñu ngi hmm. nii di waxtaan di jéem a waxtaan pour trouver une solution. li nit ñi wax rek ku ci dee moom mooy yaay perte moom ay xeetu politique moom waaw mën nañu ko waxee noonu El Hadj Ndiogou mën nañu ko waxee noonu. beneen affaire bi mooy que ni fii rek la mën a mujjee. fii rek la mën a mujjee waaye benn moment euh, tëx dafa am si acteurs yi. te gis nga tax boo amee si acteur politique yàgg na Sénégal waaye Sénégal li ci bees mooy que ni ñi nga war ñi nga xam ni ñoo waroon na jubale euh, position yi ñoom it dañoo am pété Sénégal dem na ba nga xam ni société civile amatul société civile politique rek ñooy wax te dafa am fu ñu féete loolu yàggal na loolu waxtaan bi hmm. il est vrai que ku mel ni euh, Pierre Goudiaby Atepa yàgg na see jóg ku mel ni Aliou Tine yàgg na see jóg waaye ñoom it seen position. Mhm. par rapport ak benn leader politique bu opposition moo tax loolu yombul woon. Oh, justement lu tax euh, bu yàgg ba léegi ñuy euh, solteen daal di dox sottiwul euh, tey tout d'un coup mbir yi yomb ci ñoom ba nga xamante sax. gëm ne mbir yi daanaka sotti lu xew. di mais yàggul dara Pierre Goudiaby jéem na interpellé président Macky Sall ci benn rencontre bu amoon avec les acteurs les opérateurs économiques Macky Sall ko loolu. Mhm. mu indi benn lettre pour jéem waxtaan gànta ko loolu loolu mën nañu ko comprendre la benn bi nee na ñoom it seen i posture benn yoon c'était des opposants muy Pierre Goudiaby Atepa muy Aliou Tine ils avaient des postures d'opposants yoru ñoon ay posture de neutralité boo xam ne mën nañu ko kii beneen mbir mi aussi mooy président Macky Sall benn moment aussi dëgëroon na si posture léegi nag wàcc na loolu tamit nañu ko reconnaître wàcc bi lu ko waral mooy benn bi xam na ni ah, mi ngi si yoon bi day dem hmm. te aussi amul intérêt bàyyi Sénégal ci position boo xam ne tamit ay jiwoo ay ay différenciation comme fossé yi am entre population yi loolu arrangé wu ko baaxul ci moom. Mhm. donc c' important que moment bi nit ñi gën a mën a déglu. Mhm. moo tax yenn acteur yi tamit bi ñu bàyyee seen i péete daal di wax ak président day yomb daal di wax ak Ousmane Sonko également day yomb. Mhm, te je crois que ñoom ñaar ñooy ndeyu mbir yi. ñooy acteurs principaux yi nga xam ni kat à partir de là. ba waxtaan euh, man na jur leneen. nañ ñëwaat ak yow Babacar wala waxtaan wetal nañ dañu ànd ak docteur Malo Kanté euh, docteur euh, gis nañ ne ñaari wàll yi que ce soit camp président Macky Sall ak camp Ousmane Sonko les positions étaient tranchées daanaka radical ku nekk ci wàll moom lañu ñu woon tey lan moo waral ba ñu daal di mën a nangu compromis am ci diggante bi waxtaan ngir xool ni ñuy juboo waaw euh, mën nañ ne élage euh, situation bi nekkul situation boo xamante ni euh, lu ñu bett la ndax politique aussi ku wax politique wax dialogue te Sénégal yàgg nañu am tradition dialogue loolu depuis 1960 la maa koy rappelé léegi léegi sax Souleymane ne ko depuis 1900 le 20 août 1962 mën nañu ne crise 1960 même crise yi njëkk am Sénégal lépp ci ay dialogue la mujj donc. amul benn problème boo xamante ne mën nañu ko am ci réew mi te loo xamante ni dialogue mënuñu ko maanaam du mujj si dialogue hmm. c'est pratiquement impossible voilà tradition boobu lañu am yàgg na maa ngi ko doon rappelé sànq 1960 1962 68 88 93 et cetera réew mi tamit dañoo am benn chance mooy maanaam am nañu ay levier yoo xamante ni politiciens yi mën nañ ci appuyé wu vraiment pour dox jàmm ci biir am na ñoo xamante ne ñi dañu di dañu leen di déglu lu si mel ne kilifa diine yi ñu euh, si mel ne également kilifa aada yi ak aussi loo xamante ni ci suñu culture la bokk ah tey jii gis nga li xew Sénégal cousinage à plaisanterie bu ñuy wax bi presque amul fenn ci Afrique diggante séeréer ak joola wala diggante tukulóor ak séeréer ak yooyu donc loolu euh, dafay rataxal effectivement euh, relation bi nga xamante ni politiciens yi am nañu seen biir ba nga xamante ni mbir lu mu metti metti metti metti war nañu mën a toog waxtaan xool yan solution la ñuy trouver mhm. alors dafa doon aussi lu baax président li mu mattoon aussi mu bàyyi ko ah euh, li nga xamante ni surtout ci wàllu amnistie bi ñuy wax bi mu doon lu baax ah, ñu libéré po euh, détenus yëpp gis nga démb sax def na jéego bu rëy bi mu delloo Walf seen signal. Mhm. mu doon vraiment lu ñuy rafetlu te tamit euh, lii rek aussi moo mën a am Sénégal. Mhm. bu ñu jëlee ay position radicale tout le monde va finir par perdre. Mhm. te président wax na ko. maanaam politicien bu nekk yow li ngay bëgg mooy jot nguur ëllëg loolu sax Machiavel philosophe bu mag bi loolu wax. ah politicien bu nekk loolu mooy sa passe mooy sa sa mbir. bu fekkee nag xuloo ak ŋaayoo am na bu ñu moytu réew mi mën a tomb mën na euh, daanu ci yeneen loxo. Mm-hmm. président mi ngi koy junj mm-hmm. mi ngi koy junj kay gars yi naan sax boo moytu est-ce que junjul mbirum coup d'état yooyu sax. waaw waxu lu leer daal maanaam daal yeneen loxo la wax mm-hmm. mais ñëpp euh, njort nañu li mu bëgg wax mooy armée bi. te loolu au final ça n'arrange personne donc réew mi jàmm moo fi mën moo fi xaj. politiciens yëpp kenn ku nekk li nga matoon aussi mën nga ko bàyyi muy Sonko muy muy keneen. seconde guerre mondiale léegi ñoom bu ñu juboo ñoom politiciens yi le peuple dans tout askan wi nga xamante ne euh, dañ leen ci xeex far si wàll wàllu wala ci wàllu wala ba ñenn ci sax faatu ci léegi nag ñoom euh, ñoo ci perte ñoom euh, luñ ci gagné. waaw loolu nag mooy problème bi. c'est-à-dire que ko doon wax sànq tamit ci journal français bi def nañ fi ay dialogue yoo xamante ni population bi gis ñu seen bopp. def lu nañu dialogue euh, trois dialogue mu ngi nii 2016 maa ko doon cité 2016 rek dialogue demi Covid bi. Hmm. ak bu mujj bi. te population aussi gis nañu si seen bopp mais dialogue boobu tamit jurul loo xamante ni am na ay conséquences réelles ñoom Karim Wade sax yi demoon si dialogue bi gis nga fu ñu mujj jotul bokk si élection bi ak yooyu. donc bi yoon daal dañu fexe. Hmm. ponk yoo xamante ni buñ koy tëral na ko ñëpp respecté à commencer par le gouvernement. mais opposants yi aussi ñu respecté ñoom it euh, seen i kaddu. Mm. mais aussi population bi mën a gis seen bopp si biir dialogue yooyu. Mm-hmm. ndax tamit euh, révolte buy am ci population bi lay doo gis benn politicien boo dégg ni dee na wala gaañ nañ ko. Mhm. ay innocent ngay dégg ñoo xamante ni rek ci biir askan bi lañ nekk ci biir population bi lañ nekk ñooñu ñooy euh, paye ni waxee les yaa ngi dégg léegi bi sax mais bi doon jaay gerte caaf ne finalement mënul jaay ci école bi ndax école yi génn nañu mhm. xale yaa ngi kii. Mhm. voilà. voilà jërëjëf euh, docteur Kanté nañ ñëwaat ak yow euh, li àndaat ak ci wàllu woowu léegi gis nañ ne président en exercice CEDEAO président bu Nigéria Bola Tinubu ni nga ko doon xaar tey 13h la war a ñëw ndakaar ñu ne finalement ça a été annulé wax ñu sax reporté maanaam ça a été annulé maanaam amatul est ce que loolu mën nañ ko lier ak contexte bi comme que xëy na gars yi li gars yi di waxtaan ak yooyu noonu moo tax ñu ne xëy na jaratul mu ñëw loolu euh, ban lien lañ ci mën a def ci diggante bi. waaw waaw certainement que am na gage yu solide que ni assurance yoo xam ni wane na ni wane na ni wane na ni kii am na euh, jubóo mi ngi am. xam nga li nga xam ni moom la docteur Kanté cité léegi wane na ni décrispation mi ngi am kon ñi nga xam ni tension bi parce que lii bu amul woon. Euh, mënoon nañoo njort leneen waaye gis nga gis nga laaj njëgu hmm. c'est pas parce que dañu bëgg a wax ni euh, Macky Sall li li muy def mooy yoon waaye boo xoolee dernier conseil des ministres bi muy jël décision wu report bi ah di ko di ko annoncé conseil des ministres bi nee na euh, bëgg na décristation sonj na sax le ministre de la justice wala la ministre de la justice pour ñu xool yan solution pour am décristation mais boobu déglu amul nit ñaa ngi dem rek di tëñëx tëñëxi te boo xoolee finalement moom la mu waxoon en conseil des ministres te boobu sax manifestation amagul ah donc ci loolu tànk yooyu la ñuy topp nii ba nga xam ni li ñuy woowee amnistie ak yépp ah mi ngi ci yoon bi. xam nga donc loolu loolu mbir la beneen mbir mi mooy que ni euh, report xam nga manifestation yi am fan yi ñu nekk mooy jël report daal di ne Macky Sall dafa bëgg troisième mandat. xam nga léeg-léeg aussi mooy damay wax rek ñi nga xam ni ñoo war a jubale Sénégalais yi bu fekkee dañoo dugg ci xeex bi ba pare sax di changer les termes du euh, combat. maanaam loo ñëpp nii ah Macky Sall de ne woon na day dem waaye troisième mandat la bëgg ba léegi rek maa ngi dégg élément euh, je crois à Thiès xaw ma euh, élèves yi génn naan Macky Sall dafa war a def troisième mandat te loolu duñu ko nangu gis nga il faut que Sénégal ñu nangoo dégloonte. Sénégal mais ñu bëri la ñuy wax ci opposition bi du wax euh, ma troisième mandat mais soppi gi mu sekk rob règle du jeu yi maanaam dem bay waaj a ñu ne la élection amatul dàq boobu ni mu ko dàqee moom la ñuy wax ne moo jaadu. mais mën nañ ko comprendre loolu loolu njógu mën nañu ko mën nañu ko nangul de mën nañ ko comprendre te dañoo war a xeex pour ñoom seeni position ñu xeex ko ba ci ko bu waaye nag appeler à des manifestations te yaa ngi woote maîtriser woo sax peut-être manifestation yi ba am ay Sénégalais yu si au même moment yéen a ngi déposer recours au niveau du conseil constitutionnel au niveau de la cour suprême te au même moment dialogue mi nga am parce que man dama yaakaar ni bi président Macky Sall wax conseil des ministres que ni nañu wàññi affaire yi euh, ministre de la justice nañu dialogué ah bi muy def discours bi mais boobu lii lii am na léegi kon est-ce que manifestation yi jaroon na ko parce que en fin de compte fa la ñu mujjee maintenant léegi nag il faut il faut craindre quelque chose mooy que ni euh, est-ce que am na ñoo xam ne nañ d'accord ñu si dialogue bi léegi bu ñu demee ba waxtaan il faut pas que aussi nit ñi naan Macky Sall dafa nekkoon position de faiblesse moo tax mu wooñu autour autour autour d'une table te finalement dialogue bi li mu wax rek moom rek la arrangé le président Macky Sall aussi tamit na joxe ay gage bu toogee ak nit ñi waxtaan ah bu mu ci xool euh, péetem bu mu ci xool kaawam na nekk le chef d'état bi nga xam ni moo woote na jël intérêt Sénégal jël décision boo xam ni c'est pour le Sénégal. surtout que dafay dem surtout que toogul dafay dem kay. voilà et puis dans le respect des institutions de la République na def li muy def dem ci yoon boo nekkee bu mu péetalee kaawam. jërëjëf nañu def des des élections ouvertes. ku mën a gagné nga gañe mais dal le respect des institutions de la République. Mm-hmm. jërëjëf euh, Babacar Dione suñu naataangoo taskatu xibaar yi daaneel ak docteur Kanté docteur Kanté waxtaan yeeg yooyu kan moo ci gagné ak kan moo ci perte diggante ñaari wàllu yu ko seex ak géopolitique bi. waaw euh, waxtaan bu jaaree yoon. Euh, mm-hmm. El Hadj man dama naan amul perdant nguur gi dina ci gagné benn. ndax dina mën a doxal programme am comme ni mu ko bëggee moo xam ndax chantier yi mu war a jeexal la ak yooyu opposition bi aussi dana ci gagné ndax su boobaa euh, force occulte yooyu ñuy wax wala force organisée yooyu ñuy wax duñu am wàll ci nguur gi de toute façon euh, président dina organiser ay élection normale ñoom it aussi ñu mën a joxe euh, def seen participation ci loolu mais également askan bi aussi dana si gagné ndax finalement lu ñuy wax la paix sociale yooyu yëpp ci kaw dialogue effectivement la mën a juddoo donc y' a pas de perdant loo xamante ni la il faut ñu def ko maa ko doon wax léegi léegi guerre mondiale bi amoon sax tubaab yi dañuy allemand yi ak ak anglais yi dañu doon toog ci benn table di waxtaan d'ailleurs sax ba noonu lañu mujj trouver ay solution euh, ci fànn yu bëri donc politique ak dialogue ñoo ànd il faut nag euh, kenn ku nekk jàpp ci li may métti du rek mooy le fekk aussi président wala euh, gouvernement bi di initier ay dialogue yoo xamante di def ay dialogue yoo xamante ni ginnaaw gi mën nañ ne du am benn conséquence wala du am yenn yenn engagement yi daal duñu mën a respecté mm-hmm. loolu dañuy ñaawlu di wax rek yoon ndax lépp loo gis aussi leçon la. Hmm. jot na ci def trois dialogue maanaam jurul presque lu lu mag ba Khalifa Sall sax jotoon na wax ay wax yu xaw dëgër fan yële passé hmm, euh, am naa espoir que dana ci dellu ginnaaw ndax dialogue moom ñëpp ci war a dem. Hmm. waaw moom sax position boobu pratiquement loolu défendre. mais na fekk mais kii di Ousmane Sonko Ousmane Sonko sa position radicale mi ñu ko xamee woon boobu léegi euh, tey jii bu demee euh, waxtaan ba jubóog Macky Sall jege yaadaru moom génn kasoog yooyu noonu est que loolu. Euh, du nekk loo xam te ne mën na ko yàqal nit ñi gis ne ah politiciens yi dakate ñoom ñëpp yam lu ñu xeex tey suba euh, ñu daal di koy nangu. Mhm. déedéet fooguma loolu. et puis de toute façon sax euh, booy xool du woon bu radicale. Sonko dafa ne moom du dem dialogue te nga jël paaka teg ci put bi. teg ci putam maanaam mënoo ko forcer pour mu ñëw waxtaan Sonko yaakaar naa position boobu la ma sa défendre. léegi comme li mu ñaanoon ay am na ay nit yu si dox yu si mel ne Pierre Goudiaby pa ñi nga xamante ne jàppoon nañ leen ak moom ci boppam ñëpp ñu génne leen ba nga xamante ne amul benn pression ci cadre boobu mën na dem waxtaan Abdoulaye Wade yàgg na waxtaan ak Abdou Diouf teewul jël nguur gi ak yeneen donc dem waxtaan euh, fooguma ndax euh, dana jur ay conséquences yu négatives ci wàllu électorat bi problème bi rek mooy lu ñu koy waxtaanee ak aussi nag naka la ñuy def. ba li nga xamante ni jot nañ ko waxtaan aussi lan la jural lu baax ci askan jërëjëf docteur Kanté ñu nekkoon docteur Malaw Kanté di analyste politique jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop nekk docteur en philosophie politique dellu tam di gërëmaat bu baax suñu naataango Babacar Dione di taskatu xibaar jiite yéenekaay bi di lii quotidien mbokk yi mu nekkoon gis-gis newoon tam xibaar yi El Hadj Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi Abdoulaye Diop ci machine bi Aliou Ba ca